ambassadeur bi euh, moom mooy ambassadeur wu république tchèque fii ci Sénégal euh, sàkk woon pour ñëw Touba ginnaaw bu mu déposer lettre de créance am auprès de son excellence Macky Sall ku nekk ambassadeur représenté sa réew fii ci Sénégal boo gisee kilifa gi nga xam ni moo yilif le premier magistra Euh, du Sénégal da ngay ñëwaat fii ci Touba euh, Safonteeg ki nga xam ni moo fi toog ak Serigne Touba Xaadimu Rasuul moom tamit euh, tànk yi mu dox fii tey tànk gën a feddali diggante Sénégal ak Tchécos ak République tchèque ak dakaar ak Prague ak Touba loolu nag dafay feddali rek ni. euh, Touba est actuellement à la croisée des chemins euh, euh, ci biir euh, dalal bi nga xam ni sëñ Bassirou Abdou Khadre xalif porte-parole du xalif général dalal nag ko ci tamit université bi liñ ko dalal yu bari feeñ na ci mooy lan une coopération universitaire interuniversitaire ak tamit coopération transfert de technologie ñoom tamit taxaw noonu seen kemtalaay kàttan ngir euh, euh, ànd ak Cheikh Mouhamadou Mountakha Xaadimu Rasul liggéey bi nga xam ne mi ngi koy liggéey ci université euh, Cheikh Ahmadoul Khadim am nañ ci ay xalaat joxe nañ ci seeni xalaat joxe nañ ci seeni mbébét ngir tamit njàngale à distance bi bu nu demee dinañ ko càmbar nan nañ ciy mën a accompagner complexe Cheikh Ahmadoul Khadim tamit transfert de technologie jël fii ay universitaire yóbbu leen foofu ci seen réew tàggat leen ñu ngi ciy def xalaat tamit euh, li nga xam euh, mbirum der yi tamit ñoom tamit euh, dinañ ci def ay xalaat bu nu delloo pour tamit wàllu santé bi tamit université bi am na pàcc boo xam ni benn département boo xam ni sëñ Ahmadou Bare bi wax na ko dafay day màcc jëm ci wàllu santé loolu lépp axe de coopération yëpp dinañ ko revoir càmbar ko saytu ko ba nga xam ni complexe Ahmadul Xaddim dina ci mën a gis boppam mu dëppoo njariñu Touba dëppoog bëgg-bëgg Cheikh mun Mountakha Xaadimu Rasul koom-koom euh, moom nag ambassadeur son excellence dafa ñëw ànd ak ay chef d'entreprise ku ne xam na ni Touba liggéey yi fi nekk mucc na ay ginnaaw Dakar Touba mooy la capital du Sénégal moom laa waxoon ni Touba est aujourd'hui à la croisée des chemins muy Transcom ak comment ñoom ñi tabax aéroport Saint-Louis tabax Tambacounda ak Ourossogui euh, Touba tamit bu amee mébétu tabax héliport wala aéroport international wala yeneen infrastructure ñoom tamit ibbi nañu seeni bunt ngir tàllal loxo xalif général des mourides ànd ak moom ci liggéey bi